wax dëgg sàlla jafe-jafe yi nag mu ngi commencé wàññeeku ndax dañ ne ku am ku ñàkkoon ku amutan dara soo commencé am dangay da ngay da sant yàlla na am naa dara euh, xañ na lépp ñëwagul nag waaye nag mbir maa ngi ñëw nànk-nànk ndax fii am na jamono soo musaan xëy bëgg a dem Mbàkke gi donc wala biir Touba da nga daan dox boo boo xawee naaji tuuti da ngay dox mais léegi boo bëggee dem Touba da ngay jóg directement dem Touba bu nga dem Mbàkke da ngay jóg dem Mbàkke euh, ndox tam aussi da nga daan toog fii ay jamono doo ko am courant moom waxutuma la ci jëm pétrole sax am na ay heure yoo xam ne boo ko boo guddee wàcc sa ñëw sa kër sax doo mën a jënd pétrole te booba làmp yi xewuñu ba yàlla suñ borom dogal na président Macky Sall euh, euh, bu mu jëlee nguur gi ak tey wax dëgg Sàlla ci la ñu ñun waa sanc Daaru Salaam mii di Touba Daaru Salaam mm, nga xam ne ñun fi ñu toog nii soo gisee tax man ma nekk ma nekk man ma nekk ci may wax ci Mbàkke wax ci tuubaa dama leen koy dama koy leeral askan wi parce que sama diggante man fi ma dëkk nii ci Touba la bokk waaye Mbàkke nga ne jàkkaarloog man 50 mètres moo dox sama diggante ak ñoom xam nga kon foofa ab ab euh, benn benn dëkk bi la. parce que sanc yi nga gis nii ak sanc yi benn sanc la te bu ñu fii ñëw ñoom Touba leen woon bu nee ba ñu dëkk bi nag ci la ñu doon wax ne fee mooy Mbàkke fii mooy Touba loo xam ne moo dox seen diggante nga xam ne kon kon man daanaka kon man fi man sama carte électeur Mbàkke la ne waaye man école Mame Cheikh Anta laay wootee nga dégg. bureau bureau bureau bureau bureau neuf laay wootee ta ta maa ngi dëkk ci Touba ci suuf suuf suuf taal laa laa dëkk euh, kon loolu moo tax nag may leer askan wi li tax ma bëgg mairie Mbacke bi parce que nit ñi dañ naan lu tax mën a dëkk Touba di laaj mairie Mbacke lu tax muy kaas non non foog ma kaas yëpp parce que man fii sama waa kër am ñoo xam ne nii seen carte électeur Touba la ne am ñoo xamante nii seen carte électeur Mbacke la ne parce que Mbacke moo ñu moo ñu moo ñu gën a jege fii ci côté bii nii waaye bu ñuy bu ñuy bu ñuy kaas nag dañuy kaasal Mbacke ak Touba yëpp rek

wane na ñun ñu ñu laaj ñu lan mooy seen jafe-jafe ñu wax leen ko ñu yebal seen i technicien yi bu ñu fi ñëwee ñu saytu li ñu fi war a def ñu ànd ko euh, waa ay ay nu raxmati bu tuubaa yàlla suñu borom dogal na ndox mi moom luñ ci war a na saafara lu ci bëree bëree bëree bëri saafara nañ ko ba ci ba ci ministre Mbaye Thiam bu fu mujjee ñëw ñu daje f ci forage bi ñuy wax F3 ñëwee toog na wax naa moom waxtaan na ma moom ak ak seen ndaw docteur Ofor ak waa hydraulique bu ñu waxtaanee ñu tënk ne sànc daar am yi nañ ci gën a dolli ay tuyaux wax dëgg si saafara si nag moom nañu waxan dëgg nag saafara saa ngi wàññeeku maanaam moo ngi am lu muy jafe-jafe yaa ngi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax mottali yàlla si borom dogal na tam aussi euh, Matar bi mu nekk directeur général euh, euh, bi mu nekk directeur général Sénélec sama leader sama président président Ibrahima Sall woo na ko téléphone boole ko ak man bon sëñ Matar tam boole maag ak chef région ak ak ak ak ak ak régional bi nekk Thiès directeur général bi nekk Thiès tam mu boole maag moom kooku tam ñëw fii boole maak waa Senelec bu Touba. ba kooko demee tam yàlla dogal tamit kii ñuy wax caam ñëw wuutu ko tam ñëw fekk fa yooya ñëw doxalaat ko ñu sab ñu ñëwaat ñu laaj ma lan nga manqué dëkk bi ñu ñëw fi yenn fi ak équipe bu Senelec bu tuubaa yëpp ak bu Thiès. ak bu njaareem bu ñëwee ñu visite dëkk bi xool li fi xam ne dëgg la du ay waxu kasa kasa aw ma suuf suma ko yóbbu yóbbu ma ko samay tool yóbbu ma ko ci samay ci samay projet ñu xam ne lii moom askan wi moo ko moom euh, askan ñoo ko soxla ñu ñëw def ko fi dëgg sàll boo xoolee sànc yi tey courant bi gën na yokku euh, leerage bi euh, leer na ku fi am compteur boo xam ne sax estle nga sa courant te ñëwagul sax boo ne sàncaane nga dëkk dañu lay jox cër ngir sama jëmm ji parce que ku ci am jafe-jafe ñaari da nga ñëw ci man wax ma soo ma woo directeur bu bu bu Mbàkke da koy saafara soo ma woo directeur bu Touba da koy saafara comme ne cër la bu ma yàlla jox ak Serigne Touba ci dëkk bi man na man nang ko tamit téye ko nag nang ko nekkal leen nag seen seen façon naaru góor woo xam ne lu ñu soxla ci dëkk bi rek man dama cee raaraan bi piste bi jógee Mbàkke jëm sànc Daaru Salaam boobu ba léegi mënuñu koo àggale bi na ko loolu fii xat na fi ak màggal gi ban projet ko mboqatul projet ba mu ne ko da ngay wut ay seetar nay ndox wis ko ci kaw ba màggal gi passé kon déjà kon kon maire de Mbacké bi muy def piste bi waxuñu woon la vérité li nekk dafa ñoo xam ne tëli la Bardar Rahman Gadron fekk piste la booba parce que man entrepreneur bâtiment laay def damay defar piste xam naa bu baax projet piste ni muy doxee parce que ki ko yor muy ngom moo xam ma fay xuma ngom xaman naa ko bu baax moo ngi dëkk ko tey Kaffrine gi la dëkk xam naa leen xam naa ñu yor projet bi yàlla suñu borom tamit dogal na tam aussi def naa ci ay jéego jamono yi ñu toll ba waxtaan ceek ak kilifa yi mu ci war a waxtaanal ba jàpp naa ne balaa yàgg dinañ ñëw fii dimbali ñu defaral ñu ko seet defaran bañ bañ bañ ca bañ ca soxla mbalit mi tam aussi tamit maa ngi ciy dox ay jéego yoo xam ne parce que sancaan yi ay nit ñoo fi yeewoo nañu waxante dëgg bàyyi kàmb noonu sax mu ñu gënal eh, liñ fiy def. ab làkka moom man xaw ma lu ko dal ci laa xamut lu ko dal nguur soosu man xaw ma luy problème am ci àdduna am xaw ma ko man ab làkka xaw ma luy problème am parce que nit ab maire bi la ko joxee war ngay saytu dëkk ba nga nekk lan la ab làkka amee na doomu aadama yi àq ab làkka amee na doomu aadama yi àq joo xam ne giñ ñàkk Sëriñ Tuubaa Mbàkke ne suñ si bi di dund ak dund dund di dundal askan wi ci dëkk bi fii barke Rasulullah dina ko wat jox ko wax ko boppam làkk amul Tuubaa njariñ làkka sonal na sancaane larka lijjanti lu sancaani ci ci lan la ñuy dund larka ñun ñooy jox suñu suñu suñ suñu impôts yi di ko dagg muy dem ci commune ba larka defulu dëkk bi dara xa am du fi indiwu fi courant indiwu fi ndox kàmb yaa ngi mu fi mbalit mu salt xar mu dee ñu sànni ñu nag wu dee ñu sànni ñu fas wu dee ñu sànni ñu lu bon loo nañ indi sànni ñu ko sancaani te oto yoo ko fii tuur commune de Touba rek moom lañ ciy def ay camion moom moo ko fii tuur xam nga woon monsieur le euh, maire Abdou Ndaw dafa mën a wax di wax rek waaye amul fulla amul fayda soo amul fulla am fayda doo bàyyi sa commune di ñëw këpp sama commune loo xamante nii dooma ko saafaraal léegi nag askan wi jàpp na commune de Mbacke koy def te du commune de Mbacke commune de de Touba koy def làkk mi yàlla na yàlla àtteeg moom parce que ku ñu sonal la voilà ku ñu sonal la parce que li muy def fii ci fii ci askan wi di jaani ne fi lu ne ne fi lu ne nekk ci biir mbalit mu bon mi mu ko fi sotti te saytu ko parce que d'accord naa sax nga ne da ngay da ngay da ngay tuur mbalit nga taf fi quatre-plans boo xam ne lu mu tuur mu maase la ko lu mu tuur mu maase la ko taal du fi yoon fii waruñu ko fi sa taal dooruñu fi taal dara lañoo ñu def mooy suñ ko tuuree pare jël quatre-plans yi maase la ko jël suuf teg ci koom. nga dégg loolu ñu mën nakat kii kat mu ngi ñu jàppale mais dafa jël la gën a bon li gën a bon li gën a yées ci commune am ba ndax Touba amul lu bon waaye moom li gën a yées ci biir commune bi la jël ñu ñu duñu ko tur ñun président Macky Sall bi muy ànd ak président Ibrahima Sall booba Macky sàll nu mu Moustapha Diakhaté wax rek mën dana fale bay dàqe man jàq jàpp naa ne dàq amul foofa parce que président Macky Sall laata mu doon président nekk na fi étudiant jóg ci étudiant dugg ci foofu politique jóge fa Ablaye Wade def parti mook ay guneem moroomi guneem yooyu ci Ablaye Wade ndax laa ne mën a wax parce que Ablaye Wade seen lépp la ñun ay ànd ak président di xeex di perte di xeex di perte tey ba suñ borom jox Ablaye Wade nguur gi mu jël ko def ko directeur hydraulique mu jóge foofu mu def ko ministre mu jóge foofu mu wàcce ko. ñu am ay jafe-jafe ñoom ñaar ba Macky Sall ñu ne dàq nañ ko parti bi dàq ñu ko parti bi yàlla suñu borom dogal tey mu dem ba jël tey réew mi kon jàpp naa ne Ibrahima Sall war naa bàyyi xel loolu te diggante moom Macky Sall tamit foofu loolu sax ñu ko ñoom ñaar mais man maa jël sama xel rek di ko di ko waxtaan waxtaan noonu ne as gor su ne da ngay da ngay da ngay muñ te moom xamal na ma ne muñ na parce que Ibrahima Sall bu fekkee ne Macky Sall def neexu ko woon mais kon dëkk bi day tàkk day tàkk.

dañ koo dénkoon ministère bi gën a fort ci Sénégal parce que njàng ak njàngale ku kuñ ko jox wóolu nañ la loola bu mu jeexee ñu joxaat ko directeur bi mu yoroon ni tey muy muy muy muy muy muy muy kii euh, muy SICAP yor na ko juróom-ñaari at juróom-ñaari at yooyu liggéey na fa liggéey ba rafet yàlla dogal mosuñu ko auditer ne ko da ngaa sàcc wala da ngaa da ngaa def lii wala da ngaa def lii wala da ngaa jàddal alal ji suñ borom dogal na moom loolu yàlla dimbali ko ci côté boobu mais président bu ko yóbbuwaat mu jëlee ko foofa. bu fekkee ne diggante Macky Sall tamit ci fal ak folli tamit ci ci jox poste ak ñàkk jox poste fii la yem itam foofu la mais Ibrahima Sall ku ne xam ne ne kooku Sëñ Tuubaa ko fal kuy sa maam maam Thierno lu mu bokk Sëñ Tuubaa bokk lépp bu muy am 25 ans la ànd ak milliardaire bu ëppoon alal ci Sénégal jox ko ay milliards du jeex ndoom ak tànk gu ne am na ko ci àdduna projet bu ne li jaar na ci loxoom ci àdduna te fee Macky Sall toog jomb ko kon kooku ñun lu ñuy wax. xanaa toog seetaan leen ñoom ñaari kilifa lu ñu réeroowuñu dañ leen seetaan rek ñun ñun moom duñ ci mars duñ ci duñ ci xuloo duñ ci xeex duñ jox dara waaye dama ne bu fekkee ne mag Sall da koo defoon xam ne naka su doon noona la kon ñun moom balaa ñu koo tàggu ñun man su ma wootee tey tey tey na ñëpp nañ leen nañ daje bërëb sàngam def mars fekk Macky Sall palais sans autorisation sax ñun dañuy ñun dañuy dem mais nag ñun duxuñ si loolu damay wax ne nit ki bu la falee jox la ndomb ak tànk àdduna soxla ko jëlaat ko àndal ak sa ngor ak ña àndal parce que ba nga koy jox muy sept ans yooya neexal na ci ñun neexal na ci moom dañ daan dem du ko fa fekk mu ñuy teeral di teral at di teral ñu war a teeral ñëpp kon nag foofu tamit du post boo xam dafa wóor dafa war dafa war a wëy poste ba tamit Macky Sall fi mu toog sax wóyut waxuma la ak waxuma la ak ab ab ab ab